kon dama lay wax lépp fu mu commencé escort sam si kaar yi dem wakaam jógee ci leen di dem wakaam fala Aïda doon jaayee crème Aïda n'avait rien du bu ñëwee ni Cheikh Béthio ko defar il a parfaitement raison foofu moom Cheikh Béthio ko defar ndax Cheikh Béthio tax nit xam ko parce que elle n'était rien du tout Aïda benn xale bu góor taalibe Cheikh Béthio Thioune doon jaayee marché Colobane moo njëkk nekk ci këram Aïda Diallo Cheikh Béthio moo takk ci sëy boobu Aïda Diallo dem au bout de mois mu am doom sama ñam maam ni nañ ca sëy bi dugg na fi génn na faa ñu ne doom day prématuré sept mois dugg na fi génn faa dama lay waxal histoire fa la histoire bi njëkk commencé Cheikh Béthio mooy day takk sëy bi mbokk yi pour defar xaw ma yàlla rek xam dama lay wax mbokk yi ñu ne sëy boobu Aïda ba fa sëy ba muy tëdd la jógaaleeg ëmb dugg na fi génn faa donc doom bi mat na set mois prématuré dugg na fi Cheikh Béthio bàyyi Cheikh Béthio ni jëkkëru ayda na indi Aïda mu sëy si euh, Touba xale bu góor bi ni ko man damay liggéey si affaire mooy boobu ñuy gas affaire Sonatel si suuf yi dañ koy fii la amoon ak Dakar la njëkk am ak Touba xam lépp lu Dakar am Touba bu ko njëkkut am dakaar bu koy am tuubaa di ko am en même temps mu ne ko Touba am na ci mu jëlu wax waa ji ji chefam na ko indi Touba ndeke lépp ay dal dama lay wax kaamil de xale bu góor beeg Aïda Diallo ba Aïda Diallo doom juddoo ba mu demee Touba defe naa amu fa six mois mook waa ji ñuy xeex na Cheikh Béthio di xuloo di xeex di xuloo di xeex ba Aïda dem di boole di boole sëy Cheikh Béthio tas sëy bi ni moo ko takkoon tas na ko mbax ki Seydina Muhammad Aïda amul sama kër maam faas 15 jours Cheikh Béthio ñoo ñaan ci ko jabax kon dama la wax lépp fu mu commencé Cheikh Béthio teg gi mu teg Aïda ci kaw naka lañ koy waxee sax euh, dangaa dangaa la jéng jéng ci ay jabaram da ko commencé sëyu xale bi taalibeem la tas takk Aïda 15 jours après nga baal ma ba mu ñëwee sa maam mu ne ko ma ñun duñu may suñu doom dama leen wax histoire bi nu mu demee du ñu may suñ doom géwél xamuñ géwél nga xamuñ tëgg nga ñun ay pël lañ te yow waaw sama maam li mu wax laa indi de te ñun ay taalibe cheikh lañ cheikh Béthio ni ko kii de maa koy takk ak jàmm Aïda nangu yi nga ba Aïda amee première doom ak cheikh bi bul décoché ba amee premier doom ak cheikh bi cheikh Béthio dafa ñëw xas sama maam parce que sunu kër genn waal gi baraag la woon Fass genn wàll gi nekkoon euh, naka la tudd terrasse fa la sa maam duggoon baraag bi lañ woon ay séeréer Cheikh Béthio ñëw si ngént li xas sama maam guddi googu sa maam hôpital la fanaan tension naan ko murit bi murit bi sagal na tijaan bi euh, tëgg bi xawma géwél bi sagal na géer bi daa xas sama maam ba sama maam ràppi yi nga fas ko ñu nuñ guddee sunu kër boo jógee si benn koñ bi booy dugg si moom ngay njëkk a bu dee beneen koñ bi suñu famille suñu kër ngay mujjee jot ayda ca bopp koñ ba nga xam ne que boo dugg see suñu kër yi mujjee ayda fa la jógee di raam ak yéreem jógee salon di raam ba si buntu ba si eh, tànk ci këram Cheikh Béthio mu yëkkati foofu vingt millions ni nañ ko jëndali ji yére mbokk yi ñëw leen pël yi ñëw leen dama leen di wax de ayda jàll Cheikh Béthio yóbbu ko sama début wax dégg nga sa sànq ma ne la soxna Aida Diallo moomu njëkk invité Touba soxna Aida Diallo papam Yaram Diallo waa ji nekk ci télé bi di lëmbe naan may pàppam may papam c'est pas son papa c'est le demi-frère même pap ku bokk nekk baay papam de demi-frère u papam kooku nag euh, li tax mu wax mooy papam dafa xawoon cege fi Aida yaroo mooy Fass Fass sama kër maam lay aaw la Aida yaroo seen kër faas laa daan yendu ba 96 ba ñu jógee Mbour di dem Dakar ah autant pour moi di dem Mbour sama papa jënd fa kër ay damaa ko njëkk yóbbu Mbour sama bakkanu njaboot barki salaatul fatiha ndax papay Ayda Diallo Yaram Diallo ak sama maam Kumba Diallo bi jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay Ayda ak sama papa doomu nijaay doomu bàjjen lañu ak xan doomu nijaay doomu bàjj Aïda Diallo papaam comme jigéen dafa rafetoon rafet rafet kooku sama ñammaam nee nañ mënu woon gudd fan accident moo ko rey mook chimère jaw mi ngeen dégg ci euh, Saint-Louis ay mbokk ay xarit lañ benn bakkan lañ ko moo tax famille boobu jege suñu famille dañ dem ba nee nañ ay kon Aminta li ngay wax lépp kaamil la dama la koy dëggal parce que tey résumé bi nga def lépp a leer lépp a leer te maa ngi ñëw liiruma yeneen yi desi na ngeen baal ma aax liiruma yeneen intervention yi parce que danga maa danga maa xaalloo li nga wax parce que léppay dëgg léppay kaamil léppay kaamil loolu moo tax ma ne xaar ma defal la benn résumé su boobaa ngay xam Cheikh Béthio waa ah, moo sooke lii yëpp ba pare indi problème bi bàyyi ko fi dem yoonam indi lépp teg ko fi ay da nag nekk ku gàtt xel waaw gàtt xel Aïda Diallo boobu ma lay wax baale ma àq ñooñu pël yi ba ñu ñëwee ba wax ak yaayam suñu mbokk yi laaloo de sama papa bokkoon na si délégation xam nga leen yaayam tontu moo wax leen en dehors de son mari yaayam da koo ngemb xam nga yaayam lu mu wax yaayam dafa ni moom ba muy marié ak papa Aïda elle la dernière ñeenteel bi nee dafa fekk muy liggéey trésor mu nekk intellectuel nee na jëkkëram ni ko sama jabar yi du liggéey bàyyi sa mu xëccoo koog moom mu ñëw mu ne ko boo bàyyi sa liggéey ëllëg di nga am doom bu ñëpp di coow <laughs> xoola yaay Ayda nee na barki démb njaay yee après màggal bi de ne yaay Ayda nee doom boobu yàlla moo ko ko fay Ayda Diallo mii jëkkëram moo ko ñaanaloon kon Ayda fan lay changé taalibe yi jiital ko jëkkëram jiital ko yaayam jiital ko ay mbokkam am na nekk ñoo xam ni c'est des arrivistes sama maama ko yar papa dafa teel a gaañ yaayam amatul woon dara ñu jëlee ko dagana indi ko euh, fa sama maama ko yar ay da barki salaatul faati ba may jàngee de la la doon jàngee ba gañe fa miis après dafa bàyyi jàng barki salaatul faat billaahi wallaahi wa taalaahi xam nga lu mu doon jaay crème baal leen ma sama téléphone bi doon sonné bee tax xool ma sax minute yi ma def baal leen ma ax ah, bëgguma minute yu bëri comme ni ko Aminata Touré waxee xool leen cheikh bi yóbbu Aïda foo ngeen commencé gis problème bi muy jël jeng tëdd si Aïda mu métti mbokk yi métti lépp yi nga lii Aïda def nii barki Cheikhu Tidiane sunu mbokk pël yi nekk Richard dagg Dagana Daara yépp ñëw nañ kër yaayam fii Medinatu Salaam Mbuur lañ ñoo fekk si fa Aïda ak yaayam yaayam séeréer la nday fay lu tudd yaayam dafa ñuul kuk kuk kuk li muy xees si paaf mu la ba ñu ñëw sama mbokk la ak xan ak xan ak xan ah ñun de suñu famille amul lii suñu biir famille nag genn waal pël yëpp ay murit lañ genn wàll geneen yëpp ay tiijaan lañ voilà ñii ay taalibe bàyyi lañ ñii ay laay façon tarixe bu nekk am na suñu famille dañuy dajee chaque année richardoo chaque année xub fi dëkk bi naan xumma pël ñëppay ñëw toute la famille famille bi yëppay ñëw fu ko foo nekk Sénégal bi nga jóge ñëw richardoo mais lii musul am suñu famille am na xale yu mu jotoon sax jël dagana yóbbu leen def leen ay bëkk néeg maye leen dugg ne fiis mais seen bàyyi pël ndax nekk xam na pël seen bàyyi wëlbatiwaat nañ seeni xel ba ñu dellu Aïda Diallo pël yaa ngi ci taay ay tànkam maa leen ko wax yéen a surtout WhatsApp laa ko waxee ku wax si WhatsApp xam nga sa wax dem na amatu looy nëbb man mii maa ko wax a man Tine Saw seetaan ne pël yi ak Aïda Diallo wax ba sëriñ yi de waxuma kilifa diina yeneen de waxuma sëriñ muridi de waxuma it gouvernement wala ñeneen de mais ayda ma ngay dem Inde fa sëñ Béthio doon teg tànkam si ay sëriñ bu yëf fétiche yu ñuul yi ay fay dem ma ngay dem Mali fa lay jëndee ji ay nagam am fa ay sëriñam ñu koy ngemb waaye seetaan leen ko ak pël yi tamit sëriñ buñ ko wérdalee seetaan nañ ko ak pël yi di leen titre waxoon nañu lii sama mbokk ni yéene wu ma ko franchement et bu ma sañoon en tant que mbokkam wax dëgg yàlla duma dégg lu ñaaw li ci moom duma dégg tamit lu métti li ci moom duma nangu man mii sama bopp may taw dikk li ci commenté mais nag moo ko defan ah. nee nañ ku démarche yaa tàggi sa bopp xuja sekk yow xanaa <laughs> dëkkoo si dëkk bi ba yow xamoo lu xew ay la jaar réseaux sociaux yëpp moom la ñuy waxee no ngeen baal ma àq nag explication yi gudd na lool sama intervention fallait que ma joxe ko mais fallait que ma am nu ma leen leeral si Cheikh Béthio fu mu commencé Aïda fu mu commencé sëñ Mountakha nag macha allah yàlla na fi yàgg te wér kooku moom macha allah macha allah macha allah. yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér barke lépp lu ma am yàlla teg si loxo macha allah may ziar sama mu mul yëpp si màggal bi di leen baalu aax di leen baal aax dama xawoon tawat nag loolu moo tax Serigne Saliou am na lu mu gis Cheikh Béthio ba mu def ko loolu mais nag ça ne veut pas ñu bàyyi woon Cheikh Béthio si la ka neex et li nga wax je suis tout à fait d'accord avec toi Aminata Touré Cheikh Béthio ay doom waruñu ko sax doon canta ko moo war woon amati parce que kii il n'est pas sëriñ bokku si doomu sëriñ bokku si famille sëriñ Aïda bokku si famille sëriñ bu nekkul doomu sëriñ nii riinitu ñoom ñaar ñëpp ah sañ Cheikh Béthio dee ñu ne dañ koy doon euh, pour guide des Thiantacounes nañ waxante dëgg nag foofu doon am fa Aminta euh, Touré li nga wax laay dëggal dama ko sama papa ma woy bi la yaay Aïda tontu laa leen yéen yéen a ñàkk far yéen ña fay dem barki Seydina Mouhamed deux ans ma gëj a déggante ndax man maa quitté sama kër mu woo ma daf ma namm dafa jóge Chine am am ay bagage dimbale ma comme yor a oto ñëwal boobu maa ngi sali ma ànd ak sama benn cousin bañ demee dafa ma ni naa ñëw jébbalu Cheikh Béthio ma ne ko man jébbalu naa sama borom kër ba pare man taalibe bàyyi laa taalibe cheikh laa dama jël wirdu salaatul faati ba pare ma tarbiwu donc yenn yi duma ko def ay de loolu lañu jote man ak moom te du jote sax parce que après elle a compris mais nañ mel melatuñ ko parce que wootanteetuñ xëy na bëggoon na ma xëcc si côté man it du ma ko nangu parce que am na lu ñu ma wax man sama tarixa donc du kenn warul diingat moromam mais Aïda comme ni nga ko waxee du doomu sëriñ Cheikh Béthio du doomu sëriñ affaire cantakun moo fi waroon jeex yi nga gis nga gouvernement bi tam ay seytaane lañ parce que lan mooy yow kee mu ne ñu ne ki sëy sëriñ Muntaxa mu ne kii mooy euh, guide des cantakun nga ne kon kooku demal janatu ah ayda jaa demal ngaabu seet ngaabu moom ayda yàgg na faa defee gàmmu pas mais ay gàmmu ngaabu voilà donc demal fële yaa ngi jox gëdd ayda yaa ngi jox pouvoir ayda luy luy loolu ayda toppal man Aly Ngouille Ndiaye mooy kan ayda toppal ci ginnaaw kii sinon yaa xam fa la neex nga dem mais duma la jox fen sëriñ bi tamit seetaan ko ayda di def effectivement dégg naa li nga wax li nga wax noonu li nga dégg man dégg naa ko ka dafa takk ay sëy am na ñu am doom ñëw ñu dañoo bëgg moom mu tudd seeni doom dañu waxante dëgg dëkk bi dafa tas am na ñeneen ñuy dem ba ne Aida si benn lobby la bokk lobby bu nekk France am na benn euh, benn femme bu nekk France di jiite jumaa kooku lobby yooyu dégg naa euh, nekk ci derrière cette femme là moo nekk ci derrière Aida Diallo am na góor jigéen tam bi nekk France nekk fa imam xaw ma na dégg ngeen ko dégg na ay jaay tam lobby boobu ñoo nekk si ginnaaw yàlla rek a xam kon nag ma wax leen benn affaire Aminata Touré sa résumé bi ma daanee laay ñëw tey danga ni Cheikh Béthio seexal na ko def na ko jëwriñ universel moo njëkk effectivement seexal na ko effectivement gars yi mer mais Aminata Touré xanaa da nga fàtte barki déem Ndiaye 17 avril ba Cheikh Béthio feebaree ah nekk nekk nekk France Euh, Aïda Diallo moo jiite seen 17 avril ay doomu Cheikh Béthio ñoo njëkk ñàkk fayda comme seen papa ba seen papa parce que benn doomu Cheikh Béthio nekk na Europe di wax naan papam lu mu def Aïda la Aïda nii Aïda naa Aïda nële lépp papam la parce que man bu ma nekk doom man ma nekk taaw muy góor muy jigéen ñi fa nekk ñëpp ñu gis sunu bàyyi def naka su loolu malgré que sëriñ la du sëriñ la dañ ko seexal sëñ Salim may ko lu mu mayul kenn muy lan loo ñaan dina di loo ñaan nit mu am mais nañu waxante dëgg sëriñ si tamit bàyyi Cheikh Béthio ci la ka neex Cheikh Béthio takk si sëy si juróom-ñaari sëñ Salim sëy xam ne ni ñu koy takkee di di maye si ay di di di tudd ay doom si juróom sëñ Salim ñëpp xam nañ ko sëñ Salim billaahi wallaahi wa taala ak sëñ Fallou laa gën a bëgg si taalibe si si si si si xaw ma sëtu sëñ Touba u doomu sëñ Touba. parce que du ma murit mais je sais que ñaari ñooñu sëñ Fallou doomam la sëñ Saliou xawma lanam la mais ñooñu dama togg lañ di leen gént barki Seydina Muhammad kon ñooñu ay sëriñ ak xam lañ mais na xëy na sëñ Saliou am na lu mu gënal Cheikh Béthio